yéen a ngi teewlu seen seen réew mi TV. bisimilah dal leen ak uh, jàmm lu doy waar daal xew ci Barthélemy Dias maire Dakar bi moom uh, Barthélemy Dias maire de Dakar ñu ràññeeku ko nekk na uh, jamono yi daal. Euh, ma ngay nag yëkkati ay kàddu euh, moom mi Dias ci déclaration bi nga xam ne def na ko ci semaine bi ñu génn waaye it niki tey jii Barthélemy jaas digganteem ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di ñenn ci sénégalais yi mu mel ne mi jaas kon dafa am lu muy bañ lu muy bañ lan la Sonko Sonko loolu la ñuy wax ki nga xam ne moom moo di mi Dias ba tax mu ne ku ma ko waxati ma def noonu sa ndey di saaga en direct ci li nga xamee ne moom moo di askan bi moom mi nga xamee ne moom moo di euh, Barthélemy Dias bu ngeen toppee euh, vidéo bi di ngeen ci gis euh, Barthélemy Dias ak li nga xamee ne daal dina koy def niki tey jii mu doon loo xam ne lu doy doy waar la ci euh, Barthélemy Dias mi nga xam ne euh, jamono yi moom moo nekk euh, maire Ndakaaru moom Barthélemy Dias kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati mu doon kàddu yoo xam ne ñu bari ñaa ngi koy ñaawlu ci turu Sonko Sonko loole rek lañ ko wax moom Barthélemy Dias waaye it mu daal di nag yëkkati ay kàddu yu doy doy waar daal di koy teg ci ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wax turu Ousmane ci fi nga xam ne foofu la Barthélemy Dias nekk mu doon lu ñaawa ñaaw loo yoo xam ne ah, kii di Barthélémy Dias du gulet ñu koy dégg muy dagg saaga ndey waaye nag daal dina koy dagg publiquement ci kanam ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawoon di ko sonkorisé moom mi di ah, maire de Dakar ah, li mu leen wax doon na loo xam ne lu ñaaw a ñaaw la ñu teewlu kàddu yi nga xam ne moom mi di Barthélémy Dias daal dina koy wax ginnaaw nag bañ ko day yuuxu Sonko Sonko moom mi nga xam ne moo di Barthélémy Dias ñu teewlu yi la kàddu

Mă finesse solvă mă tăi la O mulher nga réew réewande kenn gisul fuñ koy jaayee ku mu neex réew mbubb la ku ko sol mu jot la doy na waar kon ñoo ko déggantoo moom Barthélemy Dias réaction boobu la amal ginnaaw ba ko ñeen ci Sénégalais yi do les cinq sonkorisé di naan ko sonko sonko moom Barthélemy Dias yooyu kàddu la daal di yëkkati nag daal di koy dagg mu doon loo xamante ne nag nar naa am problème bu rëy ci senegal ndax Sénégal kat nemeeku nañu ne bu fekkee ne dafa am looy bañ te ñu xam ko dinañ la ko wax foo mënti nekk. puisque mi Dias kon narul am problème bu fekkee da fay bañ turu ki nga xam ne moom moo Ousmane Sonko ba waral muy dag ay saga te ñu bari bu leen daggee saaga dinañu ko ko daal di delloo te moom nee na ne Sonko dina la nag euh, def noonu léegi nak ndax li dañ koy bay mu continuer am déet en tout cas doyna war lol ci ki nga xam ne maire Dakar bi di Barthélemy ci saga yi nga xamné dal dina koy saaga nak ñen ci Sénégalais yi té lañu ko wax dalal dul Sonko mu melni ñom kon jamono yi Sonko lañuy baña dégg Sonko lañuy baña gis te nak yalla mom moko tek fi ci réew mi limu am joxu ko yalla yàlla moom moo ko jox ba tax nañu bari ci ñom bo leen waxe Sonko rek dañuy dal di énervé dañuy dal di dagg ay saga ñeneen ñi sax commencé di xeex ñu rañé nañ ko fu bari bari ci ki nga xamante ne moom moo di premier ministre mu mel ne bari na lool ñu ko bañ waaye ñu ko bëgg ñoom ñoo ëpp lool kon Barthélemy Dias àdduna ku ne woon dina dox ba buñ ne ko Sonko mu daggal la ay saaga loolu kenn du ko ndax ni mu meloon ak Ousmane Sonko démb ñoom ñaar ràññee woon nañ leen bu baax ci demalante ak dikkalante dem ba ki nga xam ne moom moo di Barthélemy Dias procès moom ak njaga juuf gis nañu taxawaay bi nga xam ne kii di premier ministre Ousmane Sonko am na ko ci mu mel ne kii di Barthélemy Dias bi doon wuyu ji foofee ca tribunal de kii di Ousmane Sonko moom moo fa daan jiitu fajar lay yeewu waaye it ànd ak ay naataangoom ngir dem gunge ki nga xam ne moom moo di Barthélemy Dias tribunal de Dakar ci procès bi nga xam ne diggante ak Ndiaga Diouf la woon moom mii di Barthélemy Dias nga xam ne atte nañ ko ba daal di koy nga xam ne daan boobu sax ñu bari jàppoon nañ ne kii di Barthélémy Dias warul mën a participer ci ay élections ndax Cour suprême dogal ba nga xamee ne génne na ko ci digganteem ak Ndiaga Diouf doon na dogal boo xamee ne moom moom mi di Barthélémy Dias amande nañ ko ci lu toll ci ay million mu war koo jox waaye it dañ ko génn ci li nga xamee ne moom moo di liste électorale yi loolee sax taxoon nañu ñu bari di wax ne ñii di ko conseil constitutionnel dinañ nag euh, duñu jël li nga xam ne moom moo di euh, candidat bu Barthélemy Dias bi nga xam ne euh, kon waroon na waroon na bokk ci li nga xam ne moom moo di législative 2024 yi kon daal Barthélemy Dias kon diggante bi ak Ousmane Sonko moom mujj na ñaaw ñaaw na ba pare fii mu toll nii kay bu fekkee ne dafay dégg turu Ousmane Sonko di dagg ay saaga kon mbir mi nag daal dinay nag aggravé wu ñu dem ci li nga xamante ne mu ngi wéy di am ba tey Vive Barthélemy Dias vive Thierno Bocoum yéen a yéen a yaakaar ne yéen a defar Sénégal ëllëg yéen yaakaar. waaw ñett ay seetaan ñett ay seetaan loolu. sama sakkan. d'accord yaakaar. nit ka nit ka Très bien. quelque part je crois. waaw ay soo wut j'arrive quoi. waruñu sori ah. wala ñu xaar bañ ñëw après ñëw prendre dans ma voiture. monsieur le maire wala nga dem ci garab bi fii. non non non nañ ko def nii. maa ngi gérer léegi nag maa ngi suñu liggéey dañu def suñu liggéey s'il te plaît lu wax. waaw.